parce que avant élection yi lu dégg nañ ko fi que ni euh, fichier bi baaxul mm-hmm. te fichier bi wax dëgg yàlla union européenne ñëw na fi ko fiable na à 98 et côté organisation j'ai eu entendu la société civile féliciter hier l'administration très bien parce que l'élection est très complexe très bien mais quoi qu'on dise il faut il faut ñu wax ko ci ñu dem ci dialogue ba aussi mm-hmm. euh, opposition bi am xel ñaar ci fichier bi mm-hmm. ñu defaat beneen liggéey saytu ko donc loolu il faut tamit ñu koy wax baax baax il faut ñu koy wax mhm. te wax dëgg yàlla bëggatuma de su ma sañoon mhm. ci élection yi di ñëw bu mhm. ñu waxati mbiru fichier parce que il faut voilà nañu wóolu wante te affaire bi nii la parce que résultat yi tey urne yi moo ko génne te foofu it féliciter la presse si moom ndax mobilisation presse bi taxaw ci bureau de vote yi à temps dépouillement yi lu génne ba xaaju guddi xam nga ni foofu sàcc mëntu fi am ndax procès verbaux bu ñu yu ñu affiché ñu gaawantu. ñoom ñoom la relayer. relayer ko mhm. donc lool tamit wax dëgg yalla dafa gëna dëgeural démocratie. Mhm. té lool tamit da fay gëna suxat transparence ci mhm. organisation élection. té Sénégal wax dëgg yalla nak war nañu dépasser yu bare bare bare bare parce que légui si nekkatul jeune démocratie mais c'est une très grande démocratie. tout à fait comme ni nga ko waxee nag ku nekk nga yëkëti sa loxo <laughs> ni mëna te dañuy faral di wax ni teel a nangu itam. Mhm. day day xaw ma oyofal ay dóor. c'est vrai waaw naa tamit mhm. taxawaayu yenn candidat yi nga xam ne ba ñu ñàkkee teel nañu wax félicité seen adversaire parce que loolu mooy dëgg. président Abdou Diouf def na ko fi Abdoulaye Wade woo ko mhm. félicité ko. Aliou Sall aussi tamit def post Facebook. Euh, félicité Ahmed Aïdara. Euh, la vie continue. Euh, ñeneen tamit ah, ba am sans importance tudd ko mais quand ba tey wax na rek ni. Vraiment, aussi vraiment ah, d'accord vraiment, ça parce que élection yi aussi suffrage direct la xam nga ki la gagné absolument absolument li li courtois mooy nga voilà. voilà. voilà. voilà. voilà mais reconnaître na defetam mhm. donc man dama jàpp loolu lu baax la parce que mhm. nga ak doon di dugal sa bopp loo xam ne mënta nga teel leen a mhm. parce que nga am sa njaboot xëy ñu waroon la dimbale pour mbir mi oyof ñu gën la koo diisalal donc yow mi mbi am noo taxawee Mm-hmm. nga yeewi ñëpp nga yeewi ñëpp ak yeneen i tamit euh, gox tamit gis nañ fa tamit yu ni mel mm-hmm. euh, maa ngi gis tamit euh, li nga xam ne soxam fa nit tamit def na ko félicité Barthélémy Diaz loolu tamit mu nekk lu am solo lu ñu war a lu ñu war a retenir mm-hmm. population yi ñoo am le dernier mot le dernier choix élection yi jàngat yi bëri na ku nekk noo ko jàngatee mais man li ma jàpp lii

léegi nag ña mu wax loolu ñoo ñu toog déglu ko. Hmm. ba mu andee ni leen ñii la leen bëgg a forcé ñooñu def lu leen neex. parce que tey am na ci yenn localité yoo xamante ne nii su fekkonte ni ñoom ña nekk foofu noonu. Hmm. ci mouvance présidentielle bi ànd nañ dans la sincérité. kon duñu ko ñàkk. mais tamit lu jar a bàyyi xel la. Hmm, euh, puis euh, premier enseignement par rapport ak euh, peut-être situation bi. situation de satisfaction la ci Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo voté. ñoom ñoo demoon voté. parce que ñoom ñoo jël seen carte. dugg ci urne bi. xool li leen doy ak li dal seen xel ñu def ko. et li dal seen xel mooy. benn ciow amul. ciow amul. waaw et puis dañoo teel yew centre mhm. de vote yëpp fees del mhm. mu leer na volonté bi mobilisation particulière sans sans sans sans sans sans violence sans rien. Mhm. mu leer na soo dugg centre de vote yi da gis volonté bi Sénégal yiy jógee. c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents peut-être à la. non loolu mënut a ñàkk non loolu sinon loolu mënut a ñàkk. gis nga àddina moom. Mm. jam nga ma wala xos nga ma ta a ñàkk. Mm-hmm. mais en général. Mm-hmm. c'était discipliné calme mhm. et puis gars def ni ñu waron def jangat gi nak moy li nga xamantene président de la république Macky Sall mom mhm. moko wara jangat parce que bo xalé mois de mars li amone mhm. Ousmane Sonko tok na def conférence de presse ne ñi genn xamna né ne taxul ñu genn président Macky Sall tok ne j'ai décortiqué le message dégg na len dégg na len ñan ñoo gennon ñi joy ci bu cher diwlin ku cher. Mhm. manque suukar. Mhm. gestion ñak liggéey. ñakum liggéey. Mhm. chômage bi. Euh, euh njabootu président Macky Sall ñu ci bari ci ay ministres DG yo xamné comportement bi ñu yor dafa dem ba Sénégalais yi. coow li gars yi profité si génn waxaale seen soxla. comme que nak il avait dit qu'il a décortiqué le message. mais il n'a pas compris le message. Le président avait décortiqué le message, mais il n'a pas compris le message. Le message, mon Il mal décortiqué parce qu'il n'a pas compris. il n'a pas compris. Wow. le mois de mars avec l'élection locale yi. Mhm. changement sur le panier ménagère. Mhm. waroon a am ci wàllu ndox mi nga xamné facture dafa cher tu do gis ndox bu baax. Mhm. courant bi waxaade tuñ ko. frustration bobu frustration bob la gars nak comme que nak yegg si na. nañ dem ci urne yi won ko ak suñuy ne ko mm-hmm. on n'est pas content on n'est pas satisfait. Mm-hmm. et puis su ma de conférence de presse bi nga xam ne Seydou Gueye moom la def. Mm-hmm. wax quoi, Benno? waa Benno. benno waaw non de Benno su Seydou c'est le Benno Bokk yakar. ils sont en train de légitimité une défaite comme une victoire. Nan way on n'a pas perdu les élections vous per ah, nga perte Dakar nga perte Dakar <laughs> perte Dakar. vous perte perte Thiès perte Kaolack perte Kaolack. Mhm. perte nga ci mhm. am ay yu mag perte. Mhm. nga ne yow perte lo ñom seen xel ñoo d'accord mais perte nañ la preuve xam nga lan. <laughs> président élection bu jàllee mu jël micro bi ne wàccaacaa naa leen. waaw du gën wax ne wàccaacaa naa leen de. bi yéen mën nañu wëlbati wàccaacaa ko xam nga mooy lan. Hmm. législative lañ jëm li ci des bareetul. waaw c'est dans quelques mois président Macky Sall ne defaruwaat. defaru nag du ay jaboot politique am de. defaruwaat gi mooy mu xool situation sociale sénégalais yi. Hmm. naka la koy apaiser ba mu gën a woyof. Hmm. ba gars yi mën a yëgaat seen bopp ka ne réew mi jag na. te mu fexe comprendre message bi ñu ko envoyé ci bu ko comprendre laatul tamit. d'accord bu les alphes ñuy àttee. gars yi defaat lu ko raw. Mhm. na delloo sax xelam xam ne président la. Mhm. dañ koo fal te nii wii nii noo bi bokk na ci discours Mahmoud Saleh bi. bokk na ci li koy yàq la bari. d'accord ñu gën a considérer Sénégalais yi jox leen cër bi respecté waat leen parce que gars yi am nañ fa la fayda gu mot sëkk ku leen joxul ci ñu jël la fi. d'accord euh, Bamba ban lecture lañ ci mën a am est-ce que euh, lii peut-être euh, dina dal xel. par rapport à ce que parce que peut-être euh, bourrasque bi moo yóbbaale ñu mais peut-être y avait des maires également qui ont un bon bilan mais qui n'ont pas résisté euh, à la marée euh, Yewwi Askan parce que comme nous le ko hmm. parce que li ça a été un vote sanctionnaire. Mm-hmm. parce que faut commencer d'abord Simon. Mm-hmm. moi, ñi ñàkk. waaw askan bi du la sanctionné en réalité. mais le régime. parce que parce que mm-hmm. c'est le régime qu'on a sanctionné. pour la première fois déjà l'élection yi amenée, ça a été un, une élection record. boo le mhm. nombre de votants mhm. nombre de directeurs yi. depuis l'histoire du Sénégal nous ñoo am <laughs> nombre de votants ni, ni, taux de participation taux de participation élevé à ce point. Mhm. da nga yeewu suba comme ni nga ko waxee dañu doon dem si école yi di xool suba teel. moom kay fajar teel. suba teel da ngay gis la gars commencé ci buntu toutes les tranches d'âge ñoo ñëw. mag ñee ñëw. diggu dóom yi ak xale yi te bi si gën am solo. pour la première fois xale yi. jël élection comme pas possible. parce que dañoo demoon ba foog ne man mii sur le terrain gis naa ñoo xam ne dañoo que ñom dañuy voter contre Macky Sall. Mhm. am ñoom ñoo foogoo ne dañu doon la dacc mhm. sax ne ban mooy civilité Macky Sall. alors que mhm. ça était des élections locales. kon cela veut dire que am ñom ñoo jàpp ne sax contre Macky Sall. doon voté parce que on l'a dit hier affaire bi dafa mel ne lu référendum. il voulait sanctionner. mais on n'a pas en réalité sanctionné. des les les, candidats. Mhm. wala mm -hmm. les notables wala ñi nga xam ñoo bëgg maire. on a sanctionné le camp présidentiel on a sanctionné un régime. Mhm. on a sanctionné ki nekk cette tête ba muy le président. Mhm. et pour man candidat yi mu nommé woon ce sont victimes. ce sont des victimes pourquoi je le comme par exemple nga may ma commencé yëmbal ba may bàyyi. waaw vas-y nga gis ne tey par exemple. li ma si jàng mooy je suis fier de de ma localité je suis fier d'être Yeumbeul waa. Hmm. parce que damaa gis ne élection li ma si jàng. à cause de la victoire de. non non fa laay jëm. dama jàng si élection yi mooy. Hmm. en réalité kenn mënu jënd kàttu kenn ndekete. Hmm. en réalité am na lu ma jàng fii mooy tey nekkutul xaalis mooy fal nit. parce que monsieur Ndar teel nañoo wane ne.

on a sanctionné son patron son patron. <laughs> boo jëlee nga xamante ne di keneen. xam xam na mhm. mhm. euh, man mais dama tay dama jaar-jaaram. Mhm. Sud. am potentiel bu mais pourquoi en tant que quelqu'un qui est master. des des en des affaires. qui a été aussi directeur de de l'investissement et du financement.

en réalité am nañ ñaar ñoo xamante ne. ku nekk mënoon nga sëriñ jëmbal. muy Balla Gaye muy Amadou. mais en réalité fa mu bokk. Mm. muy euh, euh, Benno. Mm. moom la ñu bëgg a sanctionné. d' accord parce que Macky Sall Sénégal ok ok c' est bon euh, Lamine peut-être on aura pas assez de temps mais message du peuple à Macky Sall message du peuple au régime mais quel que soit Alpha la carte. Euh, de l'arène politique le paysage politique sénégalais est redessiné. beneen ay beneen physionomie. ça c'est clair wow. et, et désormais il mm-hmm. faut compter avec les jeunes. oui qui sont mobilisés et mhm. aujourd'hui qui ont pris le pouvoir. c'est ça On jàngat bob rek mhm. parce que mon commune me déclare mon laa pas a wax. Mhm. Pape Ndok il a été ministre. le gosse qui a gagné presque Quel xamu Cheikh. Cheikh Diop qui est de Pastef. presque qui a raflé tous les bureaux de vote. ma taxaw fa minuit gis booy bi def caravane. ma gis yi ko c'est les jeunes qui se sont mobilisés. et qui ont bion eux qui sont au pouvoir. mais parti mm. désormais. Mm. aussi je pense que c'est l'effet son cours. Hein, on le désormais il faut que nous, comptions des jeunes et ci postes de mm-hmm. responsabilité maintenant on a toujours peint des gens avec euh, des sous avec un parcours avec un CV mais mais pour élection ils mhm. Ce mhm. c'est pas l'argent c'est vrai c'est pas le vécu c'est pas mhm. le CV c'est pas le nom également c'est des jeunes engagés qui se sont investis dans leur localité jël pouvoir maintenant pour nous, c'est li indi ñu yag wala ñu ça dépend de l'union Très bien. Les jeunes aussi, ils seront dans 5 ans. Ils sont interpellés. Parce que là, ils ont pris de vous. 5 ans sur C'est à eux de travailler. Ils n'ont pas le droit de faire moins. Simon, 5 ans sur 5 ans sur Simon, Moi aussi, moi aussi. Euh, le fait qu'on a voulu sanctionner Macky aussi, mm. ça, ça, va répercuter sur l'expérience à la mairie. Parce que Simon, justement. Simon, diriger une mairie, ah, il Mais il y a des maires, malgré que. Malgré les il y a des maires qui, la proximité avec leur population mm-hmm. a permis

jërëjëf Lamine Gueye jërëjëf Cheikh Anta auditeurs ak internautes yi temps bi tey nag gàtt na ñu ngi jégalu lool match Sénégal bi la ñu ngi leen di gërëm di leen sant suba incha allah beneen grande gueule